fii ci daara sëñ Mokhtar Ndiaye muy sëriñ bi nga xamee ne moo jàngal sëriñ Mohamed Gaye sëriñ Mohamed Gaye nag jëlatul ñu koy présenté kenn ku ne xam na ko waaw moo jëloon ndam lu rëy loolu te ndam mënatut a gën rëy lu toll noonu ñu ñëwoon fii nag ànd ak sunu sunu xarit sunu jëwrin muy sëriñ Saliou Silla nga xamee ne sëriñ laay Silla moo ko jiital ci liggéey bi nga xamee ne da ko sumb pour euh, jàppale ci Sénégalais yëpp tey jii nag ñu ñëwoon fii pour sargal si ko di ñaanal ñëpp nag suñu borom defal leen ci tawféex bu baax a baax di santaat bu baax a baax ci fekk gi nga xamee ne fekk nañ ko Serigne Mohamed Gaye mi nga xamee ne suñ fierté la muy mbégte moo xamee ne képp kuy jullit sa mbégte la ak képp koo xamee ne rek yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna rawatina nag yoonu murit yëpp waaw ñu ngi koy sant di ñaan suñu borom gën koo doolee sàmm kon ñu dox kàddu gi rek Serigne Saliou Sylla mu tàbbal ci kàddoom. ñu leen di ziar yéen ñëpp mbokk taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Makhtar di di ci toftal sama wëllëre yi nga xam ne ñoom laa àndal di ziyaaraat bu baax a baax a baax a baax kii nga xam ne sëñ Mouhamed mii nga xam ne nii mooy suñu suñu ndam doon suñu fierté ñun ñëpp di fierté umma islamique bépp rawatina ñun murid yi ñu ñëw fii ci bërëb bu sell bii di bërëbu jàngkatub al alxuraan fekk ko fi indil ko ay xéewal yoo xam ni président Abdoulaye Sylla moo ko ko jébal di ci di di ci di ci di ci feddali suñu kóllëre ci moom di ci di ko ndamoo ñëw nag di di sàkku ñaan ci moom moom mi nga xam ne nii ci concours bu rëy boobu muy tari alxuraan bi gën a rëy ci àdduna bi mu ràññeeku ci am ci ndam lu rëy lii ndam lu kawe lii ñu ko ci ñaanal di ko ci di ko ci sargal di ñëw tamit di ci sàkku ñaan ci moom ci yëngu-yëngu jamono yi nga xam ne bëgg nañ cee dugg muy élection présidentielle yi nga ñaanal suñ suñ président Abdoulaye Sylla yàlla suñu borom defal ko tawféex defal ko saxaadatu daare nii loolu rek lañ fi lañ fi doon sàkku si ñëw tamit bëgg a gisaale daara ji ku ne xam na ni moom ci social lay lay dox am na loo xam ne nii namm na ko ci sëriñu daara yi rawatina ci ci daara yi nga xam ne nii ñoo nekk ci ci Sénégal rawatina fii nga xam ne fii la bekk fekk baax muy Touba lépp lu ñu fi jël rek comme lu ñu fi war a def ci lu mën a ñoŋal jàngukaayu alxuraan bii dinañ ko dinañ ci dinañ ci taxaw bu baax a baax loolu mooy ay yóbbanteem te bu soobee yàlla dinañ ko ko baaxee te dina ci am taxawaay bu ma bu mag a mag a mag a mag asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. gannaaw bañ santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am mbégte mu yaatu ci ñëw ci daara ji fekk fi sunu champion bi nga xam ni euh, ca jongante bu mag boobu amoon ca Arabie Saoudia moo fa dem jël fa premier place mu nekk ndamal Sénégal gépp tey nag li waraloon tànk yi mooy sunu mbokkum daara. koo xam ne sunu mba mën naa ne sax mbagum donga la euh, ñu naan ko sëñ Abdoulaye Sylla euh, Ecotra euh, bi mu yëgee mbir mi rek am yéeney def ci participation sargal gone gi wan ko ni lii ndamal Sénégal la waaye moom tamit bég na ci tey ndeysaan mu daal ñuy booleek rakkam ji baax ji di Serigne Saliou mu ànd ak xaritam ñu ñëw fii ngir sargal gone gi waaye indi fi ay xéewal waaye tamit nag mu mu joxe yeneen i digg yoo xam ne ndeysaan Euh, mooy taxawu lépp luy daara ndax ñun xam nañ ko ci social te kii ku xam Ablaye Sylla xam ko social kon nag ñi ngi ñaan yàlla sunu borom euh, ndam li nekk ndamal Sénégal waaye daara ji nga xam ne tamit fi la sooxee ko woon sëriñ daaram bi ko jàngal yàlla wàcce barkeb alxuraan ci kawam te xam ni moom alxuraan képp ku ko defal benn yàlla dalay fay fukk wala boog bu da koy ful ndax loolu moom euh, adaxan fan kasiira lay doon loo xam ne kenn mënu koo lim ndax koo xamante ni daa bàyyi léppam daa di ñëw ci lenn rek mooy ci alxuraanul karim te it xaaru ci salaire kenn du état moo ko jël waaye moom ci engagement boppam la ko def kon nag kooku moom mi ngi lebal yàlla waaye nag lebal na ko mata lebal te moom am nag pay yàlla nañu yàlla defal jàmm kon daal Mohamed Gaye bég nañ lool waaw kay macha allah a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim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 أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ما شاء الله léegi nag xoola fa maa xatbukum ayyuhal mursaluun bi nekk sóoratu Hijr macha allah léegi bi nekk ci suratu Zariyat macha allah qaala maa xatbukuma léegi nag xaala fa maa xatbuka macha allah asalaamaaleykum wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo boobu ngeen dégg mu ëmb jàmmi yàlla ak ak barkeem jëmale ko ci seen jëmm yu sell yi eh, di wax ne bu ñu amee genn kàddu gu ñuy wax mooy sant bu baax a baax a baax mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo dagg seeni yitte bàyyi seeni soxla ngir lan ngir alquran ngir taxawu alquran waaye ngir sargal doomi daara e, ci kaw loolu maa ngi leen di sant bu baax a baax ci turu daara jeeg gone yi ma toogal yépp di sant kilifa gi nga xam ne moo leen fi yabal muy sëriñ Abdullahi Silla moo yabal délégation bi nga xam ne ñoo toog nii sëriñ Saalihu Silla jiite ko ak mbokk mi mu àndal sëñ malik ak yeneen mbokk yi mu ànd yëpp sëñ Basiiru yëpp sëñ Ablaye Naar ak sëñ cameraman sëñ Thierno ñi ngi am mbégte lool di leen sant bu baax a baax waaye di leen gërëm waaye di leen yóbbante ci kilifa googi e, na ngeen ko yeggale sunuy cant ak sunuy gërëm ci moom xamal ko it ne ko la mu doon sargale xale bi di ko sargale daara ji yegsi na ci suñu loxo loolee nag ñi ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy ful mooy nongu mooy barkeel yàlla na ko fulal yàlla na ko nongul yàlla na ko barkeel waaye li nekk ci kanam ti itam di ko yootu yàlla na ko ci yàlla defal ndam lu kawe kawe kawe loolu ñu ngi koy ñaan ci turu daar ji di ko ñaan ci turu xale yi ñaan goo xam ne du yem fii rek waaye incha allah dina ñëw ko def ci sunuy eh, sujjóot def ko ci sunuy ñaan ndax euh, ku santut nit ñi moom moo sax sant yàlla day day day manqué te képp ku la lebal njekk rek ameel nga ko ak cant kon sëñ Abdoulaye la ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko jaarale ci yéen ñi nga xam ne yéen la fi yebal sëriñ Saliou ñi nga àndal di ko wax ne bu ngeen demee daal na ko seedal na ko daaray maadu ahlil quran ji Mouhamed Gueye doon jàngi daal ak ñafe nekk ñëpp wax dëgg yàlla am nañ bégte lool lool euh, su dara amul woon lu dul ne da ngeen yëg lii rek ndamoo ko fa ngeen nekk yëg ko rek ñun loola neex nañu waaye bu ngeen solaatee seen daal yi ñëwaat ci barab bi nemmeeku daara ji loola it wax dëgg yàlla doyoon na sëkk waaye nag bu ngeen ca boolee yëkkati seen am-am seen alal ah dañ leen di bàyyee ki nga xam ne moom mooy joxe xale bi wax na ko léegi jàng na ko li jëm ci aaya yooyu wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim yàlla moom mu tax ngeen def nag yàlla na leen yàlla fulal yàlla na yàlla nongul yàlla na yàlla barkeel leen ku mel noonu moom bu ko yàlla xiiree muy def ci lu baax rek li nga koy ñaan rek mooy genn ñaan la yàlla la yàlla nongul rek ñu ngi leen di santaat bu baax a di am mbégte lool sëñ Abdoulaye ak ñi nga àndal ñëpp eh, sëñ Saali bég nañ lool ci tànk yi jërë ngeen jëf